population internet de la KSTV donc ñu ñëwal leen rek euh, fi nga xamante ni moom mooy euh, CICES e pour assister ci euh, safar bi waa Touba CICES e organisé fii nii ci ci biir CICES e donc bu ñu waxee safar rek ñu nekk nag ci waaju li nga xamante ni mooy 18 safar bi war a am ca Touba mais laata loolu képp koo xamante ni rek murit nga képp koo xamante ni rek daayra nga képp koo xamante ni rek diine moo la ñor yaa ngi yëngatu ci lu jëm ci wàllu boobu mu nekk nag journée boo xamante ni journée ñaan la journée prière journée xasida journée bernde mu nekk lu seriñ bi fonkoon ñu nekk nag euh, di dox ci yoon boobu euh, pour rek euh, mën a matale li nga xamante ni moom moo war ñii di murit ni donc ñu was fas yéene leen rek wan lépp li nga xamante ni moom moo fi xew du début à la fin donc dañuy dalal rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi teew ñu wax ñu li nga xamante ni moom la ñu préparé journée bi nan lañ ko dundee ak nan lañ koy gisee à la fin de la journée donc à tout à فلنحيينه حياة طيبة ولنجزين الأجر أشهر ما كانوا يعملون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وكذب إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رب توكلون إنما سلطانه على الذين توكلنا والذين هم يشركون وإذا بد السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmaani rahim imaam baal asalaamualeykum imaam Njaaj sëriñ Babacar Seck sëriñ Fàllu Silla ak daayira yi nga xam ne ni tey def nañu déplacement ñëw fekkee sunu bés bu sell bii di nuyu sama xarit bajan di nuyu samay collaborateur góor ak jigéen mag ak ndaw imaam ñu ngi sant yàlla bu baax bés bi bésu sant yàlla bésu safar ba su màggal Serigne Touba Serigne Touba dafa ne murit ab murit mooy kuy jaamu yàlla imaam sama xol dafa sedd dama juddu nekk tiijaan sama baay tuddee ma ab xaritam murit saalix ma yeroo kër Baye ñas Seyda Marème moo ma yar Baba Lamine moo ma yar doomam Cheikh Baye ñooy ànd guddi ak bëccëg te loolu fanweeri at ëpp na ko boo xoolee tey waa kër Serigne Touba ñu ngi fi. waa kër Baye ñu ngi fi waa kër Limaamu lay ñu ngi fi loolu mooy senegaal Sénégal dëkku jaamu yàlla kon màggal nekkatul màggalu murit yi jébbalu ci Serigne Touba waaye màggal départ exil xaadimu rasul 1889 di wax ni dafa liggéeyal yàlla yàlla fay ko li ko yàlla fay nag ñépp xaj nañ ci kon bu ñuy màggal loolu kenn du des imaam am naa fi benn at waaye li ma bëgg mooy nga ñaanal ñu waxuma nga ñaanal ma de nga ñaanal ñu yàlla daf ma boole ak ay nit yu baax dama ñëw mu tombeek safar ngeen defal ñu ñaan kër gi jàmm am na fi daanaka ku fi ñëwoon daaw ak li ngay gis daaw ak ren gis nga am na différence dama ni seen ñaan nangu na waaye ñaan nag du doy yokk leen ci ñaan bi kër bi bu amee jàmm Sénégal am jàmm wax nañ ni denrée première nécessité denrée yi yokk na waaye fii mooy CICES ñu war a waxtaane mbirum commerce wara waxtaane ñi nga xam ne ay opérateur économique lañ fii lañuy ñu war a daje njëg bi bu ñu defee li ñu war a def bu ñaani nangoo njëg yi dina wàññeeku sénégalais dinañ ci gis seen bopp yokk leen ñaan ëllëg déwén bu ñu ñëwee duñu ñu xaj ci saal bii daawkat kat néewoon nañ tuuti waaye ren ku ñëw di nga xam ne ni changement am na ñii nga xam ne ni ñooy kuréel bi maa ngi la di gërëm bu baax di leen sant bu baax safar gi ñun ak suñuy mbokk taalibe ñun ñoo ko sos ñu nekk ay membre fondateur euh, jubul si rek jàppale sëriñ bi si li mu woote ak cant ndax moom ba muy dem si géej gi di liggéeyal boroomam si leen jàpp ne mooy màggalu Tuubaa te Magal Touba kenn ñëpp kenn umpalewul ne moom mooy bis bi nga xamante ne sëriñ bi si la woote woon ngir ñu ko santale ko suñu borom ndax si la amee lépp rek li nga xam ne moom la doon wut suñu borom subhanahu taala donc noonu ñun euh, taalibe murid yi di ay ndongoom loolu rek lañ koy euh, jëfleel maanaam par solidaarité bu safar gi ak seetee ku si nekk def ay safar ngir sant suñu borom subhanahu wa taala di si jàppale sëriñ bi loolu moo koy waral waaw ni ñu ko dundee ak euh, dans un premier temps li may njëkk wax rek moom mooy safaru Cices yi nii bi mooy euh, quatrième édition bi maanaam ñeenteel édition bi ñuy def ban ko taxawalee ba léegi ñu si wàllu organisation nag euh, yàlla def na mbooloo lan muy ab daayira waaye daayira boobu moom rek taxawul taxawalul mbir yi moom kese daf see ànd ak mm, li ñuy wax le personnel fii nii si wàll organisation munoo xàmmee kii mooy murid la tijaan la wala xaadar ñun personnel ñun ñëpp ñoo ànd si kanam ki nekk si kanam te muy suñu directeur général ban koy sos ka fi njëkkoon a nekk dooleel noonu la ñu si dooleeloon waxtu yu ñu nekk fii tamit ki nga xamante ni moom lañ tombeel tamit moom noonu la si jàppee ndax ñoom ñëpp dañoo gis ne ay jëf yu baax la ay moment de prière la yoo xamante ni dañ koy ànd ak jullit yi donc ñun li suñu organisation mooy daayira boobu noonu waxtu woo xamante ni safar gi teru na rek sëñ euh, xalif général des mourides woote bu si màggal gi ñun dañuy dajaloo bu ñu dajaloowee ñu xool nan la ñuy organiser bis bi si ay waxtaan si lañuy wax ne lii la ñuy def ak lii ak lii mais li gën a am solo te loo xam ne musul ñàkk si safar gi moom mooy le volet culturel volet culturel moom mooy li fi amoon tay si suba loo xam ne jàngul alxuraanu karim ndax seexul xadim moom képp kuy képp képp koo xamante ne sopp nga ko wala nga bëgg ko wala di wuyoo moom rek war nga ko fonkaleel alxuraan ndax moom da ngay dégg sax mu ne danaan am ab lal jël kaamil ya teg si kaw tëdd si suuf koo xam nga ko fonkoon alxuraan la moo tax fii wàccee nañ fi lu ëpp juróom-ñeenti kaamil wàccee nañ ko fi jàng nañ fi ay xasida yu bëri def nañ fi kuréel xasida si ba pare def nañ fi ay rajas ay ay kilifa tamit ay borom xam-xam ñëw nañ fi wax fi ay waxtaan waxtaan yu am solo def fi ay ay prière donc ñun noonu lañ ko organisé wàllu nag euh, bernde yeeg ak euh, organisation matériel bi ñun waa suñ jëmmi bopp ñun ñoo si dugal suñuy ñaq ak personnel bi ak partenaires yi ndax si ku ko ko wax wax partenaire parce que c'est un centre centre moom ça abrite euh, ay ay ay kilifa yu bëri ay ay entreprise yu bëri ñooñu à chaque fois bu mbiri jotee dañuy dem gis leen wax leen ne Sëñ Tuubaa day xewle te ñun ay partenaires ngeen nga gis ne ñoom tamit dañ si sawar bu baax a baax kenn nekk si ñoom am lu mu def ñu boole ko lan am ñu taxaw safar gi di sant ñëpp di gërëm ñeen yéen yéen waa KSTV aussi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax ñëw ngeen fii depuis ce matin yéen a ngi fii te ki ki tax ñu xam ak mu muy Oustaz Mbaye moom fii dafay yor daara waaw dafay yor daara di fi liggéey ànd ak soxna yi di leen jàngal donc bi ngeen fi ñëwee tamit gis nañ seen taxawaay di wax ne seen li ngeen di def di liggéey bi tamit yéen yéen ngi jàpp safar gi ndax yéen vulgariser sunu sunu sunu sunu sunuy jëf sunu mission donc cant ak ngërëm ñeel na leen mais yàlla nag moom moom mu am na pay képp koo xam ne yaa ngi jëfal jëf mbir te di ko sellal rek moom dina la fay incha allah زايقة تبدلا فنغزا وهب لنا المكارم الأخلاق ما تغابت بلا سباق وجزائرنا يعاقر الكبير وجل كبيرنا يعين للصغير وجل قلوبنا على تودي بلا تنازل ولا تقاسد ولا تغاثم ولا تدابري ولا تباعد ولا تنافري حتى نذير مسلمين قاسعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وافنا بعافية تكون في دارين غير عافية واحمي وقد وكفنا عن مظلمه waaw ñuy sant yàlla bu baax nag bi mu ñu mayee ñu nekkaat fi tey ba di organiser waat ndax bii nag mooy suñu ñeenteeli édition organiser nañ ñett yi paase ak bii tey muy ñeent ñu ciy sant yàlla bu baax a baax a baax niñ ko dundee nag mooy kontaan lool waaw sant yàlla parce woote nañu nit ñi ñëw nañ macha allah. waaye bernde yi ñu leen bëggoon bernde am naa yaakaar ni tamit matale nañ ko bu matul tamit góorgóorlu nañu daal <laughs> waaw jaamu nañ ci yàlla tam te safar gi moom defe naa ñaari ponk yooyu ñoo ci ëpp solo jaamu yàlla ji xëy nañ wàcce juróom-ñaari kaamil macha allah duruus yi rajas yi xasaayid yi yëpp ci biir ñu jóge ci loolu def ñaan waaw gis nga imaam yi fi nekkoon macha allah ñaan. ñu jóge ci loolu berndeel ñaari ponk yooyu la euh, jaamu yàlla bi ak berndeel bi waaw def nañ ci daal suñ kéemtalaay kàttan euh, woote nit ñi wuy si la yombul de waaw te ñun xam nañ ni wuy nañ ni bu baax a baax a baax ñuy ñaan yàlla fekke ko dëwën waaye tamit di sant ñi ñu wuy si bu baax a baax leen di sant ñi fi ñëwoon ñëpp ku ci ànd ak euh, numu mu tuddati mébét yàlla na yàlla saafaraal lépp ci ànd ak lu la naqar yàlla na yàlla saafaraal ñëpp li ñun daal ñu ngi ñaanal ñi fi ñëwoon ñëpp jàmm di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla tam mu may ñu ñu fekkee ko waat ay ati ati at te at mu ñëw rek gën a neex bi passé di sant tamit nag suñ directeur général bi nga xam ni moom moo ñu permettre ñu def lii parce que tey bu ñu ayee woon lii tamit wala mu ni jàll leen fële ci àll ba ndax si sa bari <laughs> am na àll du ngeen ko defee fii kon tamit dañuy dem foofu rek te vraiment teg nañ suñu gan yi foo xam ni fii ñu ko defee daal fii la neexee ci bi salle VIP bi salle bi nga xam ne moo gën a rafet fii ci foire bi kon ñu ngi koy sant sant tamit nag suñu mbokku personnel bi yëpp parce que tam ñëpp bokkuñu ci daayira bi waaye tey amul xàjj amul seen waaw tu kuy murit ak ku dul murit ñëpp tey dañu ànd personnel bi nekk benn waa ñu leen di sant ñoom tam bu baax sant tam ñi ñu bokkal daayira bi rek di leen ñaanal وباغي سبحانه كنبي وواغي ونال في كنبي المني من كل زر وحسسني مستمسكين بالخيار واسع مدى غير الأنام منتهى ومبتدا مرغلا في زمني وبائي آمنه الله من البلاء فقد جاءكم بشير فقد جميع الأنبياء ورسل سيدنا أحمد إبن المرسلين خدم أحمد على الكرام مطربي لكل من احترامي درجة العبد الرسول أحمد سيارة الأخيار safar gi nag bii mooy quatrième fois ñu koy organiser depuis deux 2018 lañ ko tàmbali te bañ ko tàmbalee ba tey sant rek lañ ci gis ak mbégte waaw ndax euh, biñ koy tàmbali di ko waajal nii sax ñi ngi doon laam-laamee yu ñuy def ak yu ñuy bàyyi mais boo xoolee sëñ Touba moom mbiram moom da ngay tàmbali rek. li ci des yëpp moo koy àggali ndax fi ñu yegg si fii ñun xalaatuñu woon sax ne dinañ ko dinañ ko defee nii mais sëñ Touba moom ay mbiram amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am donc euh, kontaan lool ci bés bi di sant lool ci teewaayu ñëpp di gërëm ñëpp di sant sëñ Touba di wax ko nii daal di ñaan yàlla di ñu may chaque année rek ñu mën ko di ko teewee di di ko di ko di ko defal ni ko boroomam bëggee maanaam bég tey bégale berndeel gañ ñi ñu ñëw. lekk ba suur déglu fi ay xasaayit déglu fi ay waxtaan ku nekk am loo fi jëlee daa di ñibbi dellu kër ga nekkaat ci liggéey bi. xanaa bëgg bëgg rek wax dëgg yàlla ndax comme li ngay wax mun ngaa louer ay chaise mun ngaa louer ay bâche mais nit ñi mënoo leen a louer waaw kon nag di leen gërëm ñoom ci seen déplacement ndax dañ ko def ci seen coobare bopp du luñ leen defal du dara dañoo bëggoon ñëw rek jàpp ci bés bi. te def jàpp nañ ci ba mu baax ndax boo ñu toogoon nag def ay gisuñu ñu ñu toog ak ñu ko teewe day xaw a doy waar mais sant nañ bu baax nit ñi donc ñun moom bég nañu lool di ñaan yàlla sëñ Touba fayal ñu leen aoudu بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf jër Touba jërëjëf Serigne jër jërëjëf sëriñ Touba ndax moo waral lépp organisation bi nag euh, ma naanaam dafa mel ni man lañ ko sasoon ci ndimbalu suñu boroom nag euh, jàpp nañ ne vraiment ren moom suñu safar yi daan def ren moom gën na avancé ndax euh, lewetal nañ fi am nag ak ngeenti xar ak ñaar fukki ginaar loolu ci benn kii bi la donc suba teel bi aussi def nañ ci laax yeeg kafe yeeg was yeeg meew yeeg mu ànd ak kaamil yeeg ak beñe yi te déwén am nañu yéene yaatal ko ba mu gën a yaatu te wàcce nañ fi aussi juróom-ñaari kaamil jàng fi ay xasida euh, jàngkati jàng ñu waxtaan aussi li ci amoon solo moo mooy waxtaan ci safar mooy il faut nit ñi xam lan moo tekkee safar sëñ bi lan la wundu mooy foog nit ñi xam ne sëñ da cee wundu juste pour dimbali ñu ndimbalu sëñ bi rek moo ci ne mooy que ne ndimbal bi mooy que ne bëgg na jaam ju ne liggéey ci ndax am texeb suñu borom loolu rek la ci sëñ wundu mais ndax moom lu ko yàlla damay may na ko pare mais dimbali jaam yi moo tax mu woote safar mooy sant leen ma yàlla donc ñun nag aussi ñu nekk fi nekk administration en dehors administration doon taalibe Sëriñ Tuubaa ñu ne bu loolu amee dañuy jël administration bi jël bureau yeeg jël bi gi teg ne la laxasaayu doon bàyyi faal ndax ñun ku lu Serigne Touba rek ñun Serigne Touba la donc mbir mi nag euh, dañuy remercier suñu kilifa gi fi yàlla def muy Salou Keita ak PCA le président conseil d' administration ak suñu partenaires yi fi nekk yëpp ci biir site bi ndax xam nga ñun événementiel la ñuy def euh, te am na ñoo xam ne c' est des locataires sites yoo xam ne fii lañ ne. te ñoom aussi jàpp nañ ci de près et de loin ñu ku ci nekk woo nga ñu barkeelu ci te barkeelu bi dama leen di fàttali toujours ñun dañ dañ leen di dimbali rek ndax sëñ bi dafa ne tàmbali leen amaana bu ci kenn loon dërëmam bés bi day alaa daw me day jàll mais ndimbalu suñu borom moo demee noonu da nga koy yaatal ba mu yaatu yéen aussi de passage yi leen gërëm ndax depuis cinq matin ba léegi ñu ngi fi installé def seen technicien réquisitionné ñëpp dañ leen di bàyyi suñu borom ak borom bés bi mu fayal ñu leen allahumma salli ala sayyidina di sant waa daayira bi ñëpp di tuub nag ci kàddu yi ndaxte sànq ba léegi may kii mais dama laaj jëwri mu jox ko ndigal moo tax maa ngi tuubaat ci kàddu yi lépp lu ci dëng rek sama jëmm jii la lépp lu jub nag suñu borom la allahumma salli ala sayyidina Muhammad jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ñu teew ko ay déwéni déwén déwén déwén barke borom Touba ak Daaru Euh, voilà internet euh, KSTV ñu nekk rek ci li nga xamante ni moom mooy euh, njeexitalu safar bi ñu leen ñëwaloon rek fii nii ci CICES mu nekk nag safar boo xam ne waa daayira Touba CICES ñoo ko organisé woon à l'occasion du grand magal bi ñu nekk di préparé mu nekk nag bés bu am solo mu nekk bésu ñaan bésu delloo njukkal maanaam bésu rek mbégte pour ñëpp ñi nga xamante ni moom ñoom ñoo fi teewoon ngeen gis comme ni ngeen ko gisee nag mu amoon fii ay wàcce kaamil jàng xasida macha allah euh, jàng nañ fi xasida def nañ fi ay ñaan et aussi bernde yi macha allah donc daal mu nekk bés boo xamante ni bésu mbégte la woon te ngeen gis euh, ni mu fi xewee ngeen gis aussi li ci personnel bi euh, li ci personnel bi wax ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci organisation bi ñi nga xamante ni ñoo bokk ci daayira bi ak ñi nga xamante ni aussi bokkuñ ci daayira bi mais ci personnel lu si CICES bi euh, la ñu bokk ñu ci wax ak ni ñu ko dundee tey mu nekk nag pour ñoom bés bu am solo en tant que mouride mais en tant que ki nga xamante ni jullit nga ci fii nii ci Sénégal Euh, ni ngeen ko gisee bés bu am événement yu marquant ñuy wax ni rek euh, bi mooy quatrième édition bi et prochainement ñu ngi koy préparer pour rek euh, année yi nga xamante ni mooy ñëw mu nekk yeneen maanaam yeneen safar yu gën a am solo yu gën a yaatu e comme niñ ko waxee yoonu sëñ moom tànk kanam rek la am amul tànk ginnaaw donc ñu fas yéene rek incha allah àndaat ak ñoom ci li nga xamante ni mooy safar yi ñuy organiser di rafetlu tamit teewaay bi nga xamante ni maanaam moom la fi autorité wu CICES yëpp teew de la part de ñi nga xamante ni ñoo organiser euh, événement bi donc lii lañ leen indiloon ci internet de la KSTV di leen jox rendez-vous euh, très prochainement ci yeneen émission euh, maanaam ci yeneen événement ci yeneen safar toujours rek ci lu leen di bégal mais toujours aussi ci luy participer ci jëmale suñu réew kanam donc à très bientôt et merci beaucoup